keroog point de presse bi rek ñëw ngeen ñu waxtaan ñëw ngeen ñu waxtaan wax leen li ñu nar ba tey ñu ñëw ci panel bi paneel bi nag ñu ngi koy tenir fii ci résident la joor lii nekk na lu nga xam ni Amath Dansokho moo ko jëkk a junj bi ñuy suur Mamadou Dieng mu ne camarade bii xamul fenn PIT la xam kon nag bu yàlla defee li muy def war nañ ko jagleel benn bés boo xam ni séminaire sax la ko tudde woon Mansour si reprendre ko ne ma lii de war nañoo def dara ci lañu ñu commencé di ci liggéey ba tey nii ñu tenir panel bi. panel bi nag dafa nekk lu nga xam ni dañu bëgg a jaar jaaru Mamadou Dieng yi la ñu bëgg xoolaat fan la jaar ci politique ci social ci éducation ak ci administration Mamadou Dieng fépp la woon. bu ko defee kon dina am thème yoo xam ni maanaam ay ay ay ay xala ay ay poñ yoo xam ni nit ñi dinañ ko sotti pour que mbooloo mi nga xam dinañ fi daje ñu mën ko waxtaanee jëm ci par exemple compétence maanaam ñi am xam-xam ci communauté lo ci collectivité locale yi nan lañ ko mën a jariñoo ku mel ni di Dieng nekkoon trésor am na ñu ne agriculture am na ñu nekk élevage am na ay jàngalekat yooyu yëpp ay compétence la maanaam ay ay ay ay euh, ay euh, ay compétence la yoo xam dañu nekk ci communauté collectivité locale yi ñu mën ko jariñoo Talla Sylla war na ko waxtaanee te déjà commencé woon na ko li gën a am solo e mooy alalu réew mi nga xam ne dañ koy jox dafa nekk ci trésor wala mu nekk feneen ki nga xam ne day def politique nan la mën a boole politique bi ak yor alalu réew moomu loolu tamit nekk lan lu nga xam ne dañ ko war a waxtaanee tey parce que ñu bari tey ñu ngi leen dénk alalu réew mi ñuy def politique war nañ ci taxaw seetlu Souleymane Brin dina ñëw ci innovation bi nga xam ne Mamadou Dieng indi na ko ci ci euh, commune bi. loolu lan jàngat lañ ci mën a dem muy entente citoyen bi nga xam ni taxawaloon na ko Alioune Niang Mbaye moom it dina ñëw waxtaan ci yan pexe lañu ñu mën a am yoo xam ni dina méngoo ak réalité Sénégal pour mën a génn ci ci ci ci ci ci ci ci ndóol ak ci ñàkk gi nga xam ni nekk na ci société bi donc loolu mooy poñ yi nga xam ni magay kase moom it dina waxtaan ci benn aussi idéologie maanaam doxalinu PIT xalaatu PIT nan lañ ko mën a méngaleeg ak doxalinu du Dieng ci politique. parce que du Dieng PIT la bokkoon te PIT am na idéologie maanaam am na ay am na ay xalaat ay doxalin donc loolu mooy ay thèmes yoo xam ni dinañ ko waxtaanee pour que mu njariñ mën ci génn. bi des nag mooy suba dimanche ñu war a dem médina Fall fa nga xam ni fa la juddoo ay mbokkam nekk fa ay xaritam nekk fa nit ñi fekk ko fa dem ci bàmmeel bi ñaanal ko. dellu si ci kër gi jàng alxuraan bu ñu paree ñu indi ay seede ay témoignage tëje ko nag ay tagg yonent bi bu ko defee ñu mën a tàggatoo ba beneen yoon li ma waxul woon sànq ci français mooy teewaayu sëriñ Assane Kane Nasru teewaayam dafa dafa dafa firndeel lu bari kóllëreem ak digganteeg Mamadou Dieng li ko jaral mu bàyyi taalibe yi foofu tey muy bés bu xat mu ñëw ubbil ñu li ñaanal ñu ne bu subaa tamit dina taxawu jàng alxuraan bi kooku dal na suñu xel te Mamadou fa mu dëdd kontaan na sëñ Assane Kan Nasru ñu ngi koy sant di ko gërëm di gërëm ñëpp.